làggate du wadd lii banaana buy làggate du wadd la <laughs> ah defaral ko j'adore boo may defaral salut Halima salaamaaleykum maaleykum salaam Halima na nga def namoon naa la trop xaaral dañ daf may defaral après mu nuyoo maa xale yaa ngi lay doser ñoom Mamadou Ndiaye mu ngi raay bopp waaye bonjour Halima bonjour Kalima <laughs> day bëpp rek kalima bi nag dama koy may ay nit dédicace ci invité dama koy dédicacé Alaaji Malick ah Alaaji Malick xam na Kumba xam na voilà Alaaji xam na jabaram Kumba xam na di ko may Petit Ndoy ah vraiment Alaaji Zoum ko zoom ko man mën nga moo génne ci écran bi dugal ko moom kese voilà donc invitation bi ñu koy may Medoune Diouf ah di ko may euh, vraiment Père Assane parce que dafa jógee fële ñëw seetaan si euh, invitation Kalima dédicace à Djili Diémé defaraat na caméra am téye ko dànk rek balaa nga ci jëlee torti ko les courbatures kii da nga koy seetaan rek ñii doo leen jege de ñii di joué ci film yi te rafet lool ñii doo leen jege ñii bul jege ñii doo leen jege voilà ah toog il me fait signe nee na dafa war a réparer micro bi mu ko takkal. micro bi kon baaxul. no micro kii lañ ma jox non non non bu ko takkal micro micro bi ñu ko jox baax na. Ah, parce que nee dafa bëgg a ñëw changer changer micro bi non micro bi baax na on l'entend de toute façon ah donc Kalima qui est là euh, bonjour merci d'être là ñu ngi lay nuyu on est très content de te recevoir euh, la dernière fois bi ñu mujjee gisante benn bisu ñaar nga ma defoon wala. waaw tey cinq laa lay def. saa nga ñëbbeegoo ay problème na xale cinq fóon <laughs> fóon nga nuyoo ak euh, téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan. voilà maa euh, maa ngi lay nuyu. di mm. nuyu ñu nekk ci plateau bi di nuyu euh, waa diaspora bi. Mm. ak sous région bi. parce mm. que ñu ngi ñuy seetaan de partout. ñu ngi ñuy seetaan que ce soit Côte d'Ivoire. Bénin Burkina. en tout cas daal. Sénégal sa séduit ah. tout euh, la sous-région ah donc nu naa ñëpp Euh, et merci pour l'invitation. Voilà. on démarre les hostilités. ngeen posé ko ndànk nag dafa xaw a dër. da koy posé ay tuuti <laughs> question rek dër ba nag bu ma ah. <laughs> bu leen ma accéléré. abano stress la xam naa kii bu ngeen. boo ko invité resto balaa mu naan la je t'aime dina je t'aime. non mais. mais ma a dër yow boo moment sax bëgg yow <laughs> yow moom damaa bëgg sax xoolal mu woowal yow jarul explication ni nga mel ni très bien. naa toog di sourire rek. ji bu fi amoon sax neex. yow di sourire rek xoolal rek ju neex gi. yow jarul expli bul expliquer dara. yow xoolal mu woowal seet nga xool bon. posez doucement vos comme ça elle va répondre calmement dañ ma koy jiiñ waaye du man. <laughs> elle est adorable et adorable et très talentueuse donc la mm. preuve euh, dem na fële Burkina euh, jël fa prix boo xamante ne meilleure euh, interprétation féminine Sotigui Awad qu'est-ce que ça t'a fait ah. que déjà ñu tourné fii téléfilm pour Sénégal la woon mu génn Sénégal ba ñeneen ñi di ko seetaan nga dem jël prix waa déjà pour nomination bi rek bi ma koy jot satisfaction la woon mm. ma xam ne sama liggéey tey teg leen nañ ko prix ba ma am ci nomination donc euh, après nomination bi dama doon partager ci réseaux sociaux yi di laaj euh, samay xar samay euh, xarit samay fans comme ça ñu votel ma et euh, j'ai été en compétition avec pas mal d'actrices qui venaient un peu de partout muy euh, Afrique du Sud Égypte Maroc mm. Nigeria yàlla def na nag man maa ko emporté. donc mu nekkoon satisfaction bu rëy. xam ne parce que ay acteurs ak ay yu mag ñoo bokkoon. ci compétition surtout que lii di Afrique du Sud. lii di Nigéria Ghana. Kenya xam nañ ne que production audiovisuelle foofu noonu la. gën a am doole mm. fii. Mm. mais biñ biñ biñ la woowee sa tur. sama fit rës la njëkk def. <laughs> parce que euh, maa ngi préparé woon benn speech sax mais bi ma yéegee ba jot microbi bi speech bi dafa réer. xam nga def ko. Euh, donc euh, j'ai tenu à la population sénégalaise qui m'a beaucoup. soutenu mm-hmm. Abdoul bi ma njëkk may chance ma jouer ak Kalista ma famille mm-hmm. Marodi tamit dama fàttali lu tax ma ma choisir ce métier mhm. mais là ak prix bi yan yeneen yan projet ngeen di parce que xam nañ ni que actuellement maîtresse d'un homme marié ñi ngi xaar suite bi mhm. mais est-ce am nga ay proposition bi nga jotee prix bi waa acteur bu demee ba jot euh, prix day mel ni footballeur. Donc euh, il est il est recherché par tous les producteurs, réalisateurs. Euh, bi ma jógee foofu noonu j'ai beaucoup échangé avec d'autres réalisateurs que j'ai rencontrés sur place, ah. des producteurs. Donc euh, maa ngi ñaan yàlla fii ak 2021 fekk frontières yi ubbeeku euh, liggéey avancé donc euh, oui am na ay propositions. mais mhm. est-ce que liggéey la boo le fait d'être actrice da nga ko jàng wala dañ la jël nii pour un casting et depuis lors euh, nga am euh, bi ascension en fait ou bien tu es rentré dans une école d'art pour jàng li nga xamante ne tey moom ngay def. no jotuma ko jàng te pourtant loolu laa yàggoon bëgg sama àdduna mooy intégrer une école d'art mhm. parce que c'est vrai que am na passion bi mais awma performance bi donc euh, li ngeen jot gis yëpp c'est des entraînements que je fais dans ma chambre devant le miroir parce que acting liggéey la mm. euh, euh, tu interprètes un rôle pour donner des émotions. On mettait encore ci acting fii Sénégal. waa siiw parce que <laughs> parce que siiw du jàmmi borom après euh, dès l'instant où tu deviens un personnage public les gens ne te pardonnent plus certaines choses mmh. donc euh, yaa ngi ci def attention yaa ngi ci euh, moytu média yi yaa ngi ci moytu rumeur yi te loolu voilà voilà donc euh, siiw daal du jàmmi borom. la de débat. Mhm. fii ci Sénégal parce que dañuy jàpp ne def ci bëri loo xamante ni dafa am beneen pas bu ngeen bu ngeen war a teg vous n'avez mhm. plus peut-être droit à l'erreur vous vous devez mettre les bouchons doubles pour vraiment euh, gën a mériter récompense yi nga xamante ne moom ngeen di am le travail vient de démarrer. bien sûr euh, léegi lañu gën a am. liggéey parce que dinañu permettre ñu gën a gëstu suñu suñu euh, scénario gën a liggéeyaat euh, jeu bi et puis li ci gën a neex mooy maîtresse dafa tax ñu bëri xam dëkk bi Sénégal à travers euh, waaw mboot yu bëri génn <laughs> pas que parce que commentaire yi may gën a jot mooy euh, euh, nos coiffures nos modes style beauté euh, tax na ñu bëri xam tamit infrastructure au Sénégal donc non seulement jaay nañ Sénégal mais jaay tamit suñu culture et histoire. Mhm. C'est un métier qui fait rêver hein, oui. actuellement après ce qui s'est passé euh, ci castingu euh, dernier castingu Mouradi ah, bi nan la lay def yéen ci moment yi ngeen xam ni gis nga ni euh, même j'ai entendu wala bien j'ai vu des étudiants yu même ay bac plus 5 mhm. ñu doon dem di def fi casting bi lan la lay def ci moment yi nga xamante ni mën nañu wax ni au passé nekk pour nekk acteur wala nekk actrice dafa compliqué. de l'ombre à la lumière en un temps ngeen waxtaan ak Senghor <laughs> c'est un métier. <laughs> ouais, vite fait hein. moo tax may ñaan état bi mu ubbi benn école boo xam ne dina jagleel. Euh, euh, jeunesse bi mën a jàng euh, gën ci mën a imprégné te gën ko jox valeur parce que quoi qu'on dise euh, l'art ne nourrit pas son maître ici te euh, jot na tey ku ci mel ni euh, acteur bu jug bàyyi lépp pour dundee loolu mën ci bénéficier voilà bon ben on est très content ci prix bi et ñu ngi leen di xaar ci yeneen yu gën a yokk am ouverture mhm. euh, que euh, film yu mag yi ñi ciy gis ay acteurs sénégalais en tout cas vous faites notre fierté et puis dem rek bi strong li amérique mhm. américain yi wax i faut y aller avec beaucoup de force et beaucoup de courage donc regardez prix baa ngi mais diis na de attan nga ko <laughs> mbaa attan nga ko c'est trop lourd ah lii nga jëlee Burkina Faso ba Dakar la la la c'est trop lourd en tout cas on est fiers donc c'est le prix euh, interprétation féminine euh, africaine euh, yàlla nañuy dem ba di leen gis ci ay festival de Cannes gen ah, ngeen di taxaw ci tapis rouge yu mag yi c'est tout ce qu'on souhaite euh, j'ai dit tantôt ñun fii Sénégal dañu yàgg consommer ay films étrangers j'ai parlé de Rosa Garcia peut-être que c'est lu yàgg la mais il y tellement de xamante ne dañ koy consommer rappelez-vous bi fi euh, ki fi Alaaji Ndiaye indi woon euh, indo bi Baydey on l'a accueilli comme superstar donc barki démb bi ngeen demee Côte d'Ivoire da ngeen accueillir <laughs> nous on est tellement content on a besoin de ça ñun dañuy consommer les autres ñuy consommer euh, sunu ay artistes merci en tout cas parce que vous êtes tous des ambassadeurs uh-huh. on va finir cette émission n'est-ce pas comme ça ñu bàyyi leen ak Amina Poté tu tu la remercier certainement déjà ah pour finir bien sûr may remercier bu baax encore sama fans yi ma yi ma euh, voteel mm. euh, di remercier tamit sama yaay parce que jàppale na ma lu bëri. c'est bien euh, encore une fois merci à vous de m'avoir invité. Mm. ma ci profité di naan tey c'est la journée mondiale. Mm. de la lutte contre la violence faite aux femmes. muy journée boo xam ne bu ma. soxal la parce que gis nañ ne confinement bi bi mu duggee ba léegi y a eu plus de violence faite aux femmes. Donc c'est euh, un moyen pour, pour moi de lancer un message d'Oina contre la violence faite aux femmes. Merci Kali. nan nga bëgg ñu lay wooyee xalima wala kalima. xalima xalima donc xalima ngi et euh, voilà moi je suis fier de Calista Khadija. ah c'est c'est je, je suis fier d'elle. voilà je suis fier d'elle euh, quand euh, tu vois une personne qui démarre devant toi. Mhm. Euh, dem ba am barki dem rek maa ngi koy seetaan ci benn document réalisé par nos confrères de France 24 je pense ah ils rediffusent ça tout le temps euh, donc euh, voilà je suis fier d'elle. Calista on t'embrasse très très très très très très fort et bon courage gën rek di yokku gën di dëgër et puis durumlu Sénégal boo fi nekkee da ngay durumlu boo durumluwul. Euh, dañuy jël sa yëf. te wax dëgg yàlla euh, fii yëf yi toll moom euh, boo durum luwul rek doo ci génn El Hadj Malick mi may laaj durum lu dangay bàyyi ba jeudi ci jotaayu mag yi ma détaillé lu durum lu mooy lan durum lu rek mooy ni ma defee mooy durum lu voilà et puis go go on t'aime. Mm-hmm.